yi teew ci jigéen mag ak ndaw ngi nuyu kenn ku ci yéen nuyoo ba yenn ci moom di nuyu waa Géejawaay yëpp di nuyu ñi nga xam ne dañoo bàyyeekoo feneen fudul Géejawaay ñëpp ndax am na ñuy may wax ni ña nga bàyyi koo ba gàmbi ci mel ni maam Thierno moomu am na bàyyi koo ba Kébémer ci mel ni Ibrahima Fall Mbale am bàyyi ba Touba ci mel ni am ñu bàyyi ba ci mel ni ak waa am ñu bàyyi ko ci barab yu bari di bokkul fii ci biir Dakar loolu nag mooy woon bu baax a baax seen cofee ci Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di ma wan seen cofee ci sama liggéey ci euh, mawlidu nabi mawlidu nabi euh, yàgg nañ koo def maag yéen di sant suñu borom ci tawféex ji ñu ciy defal ak sutura si ñu ciy defal boobu ba léegi kenn ku nekk ci yéen maa ngi ñaan mu jàngal ma ñetti lixlaas ñu yéene ko mboolee bu jullit yi nekk barzak te daan gàmmoo ak fuñ masa gàmmoo rawatina ñi nga xam ni dañ daan gàmmoo fii te daan ko ànd ak man rawatina ñi nga xam ne dañu amee woon pasteefu ànd ko ak ñun ci seen koom-koom ak ci seen jëmm tudd nañ ci léegi ñi nga xam ne bis bi mënu leen a fàtte dañ cee marqué ay empreinte lu ci mel suñu maam yi nga xam ne ñoo sañtoon fii nga xam su yàlla dogalee suñu jëmm yi di dundal li tey ñoom la tambalé ko ci suñu mam alaji Cheikh Ndiaye suñu mam muti Diop suñu mam Fatou gey nga xamné mom yeen yéen ñëpp commencé ngeen xamné mo moo défar verté defar yi jëm ci gamba soona Jabu Ndiaye xam ngeen ko lu ngeen sa di dogu ci gamba gi ci kërëm ngeen ko daan toggee kon ñooñu dañoo marqué ay empreinte ci gamba bis bi munu leen a tax na ñoom ak mboolem ñi bokkoon ci diwaan bi defaatu xam ngeen mu baax gis ngeen Babacar Diagne noonu la daan àndee ak yéen sécurité bi ci lii Babacar na ca des Pala ba ak Ndiaye ku ci ne rek xam ngeen nan la seexoon ak euh, bâche bi lan la seexoon ak mbooloo yi ci ànd ak ñoom ci liggéeyal yàlla.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 أينما كانوا في برزخ آمين kon ma nuyuwaat leen euh, ginnaaw bu nu ñaanalee ñi nekk barsax ma nuyu ñi fi teew it tuddal nañ ma ñëpp su ma mayee rek ma profité xam naa ne waxoon naa jëwriñ yi ne leen ren ñëwuma pour waxtaan waxtaan bi damay bàyyi si ñu lay mbàggee mu def ko doy na sëkkit ndax xam-xam la ci génne te waxi sëriñ bi la fi waxtaane te waxit wi leer na sell na itam may nuyu suñu way juri yi toog suñ ma mayee ma cité suñu way jur soxna mu yóbbaale ñëpp ci ñi nga xam ne ñoom ñooy bokki deret yi bu ñu nuyoo soxna aji Tamba mi toog mu mu yóbbaale mboolem ñi nga xam ni suñuy waajur lañ yu nekk fii ñi ci des ñu xam ni dugal naa leen ci biir nuyu boobu euh, lii sama yéene bi mooy ku ci nekk ma tuddal la sama bopp wante bu ma ko defee tant bi ci la fajar di di jot ci loolu it ma nuyu sëñ Bayla Ndiaye xam ngeen ko diggante ma Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam day mbokkam di maamam sëñ Moustapha ngi nii moom xam ne ngeen ko bu baax sama rakk na noo ànd bis bi Serigne Pape Sène di taalibe Serigne Abdoul Karim ak ñi may seet noonu Modou ak ñi fi nekk ñëpp maa ngi nuyu ñëpp bàyyi ko di di di sant yàlla bu baax a baax nag moom mi nga xam ne ñu dimbali mayaat ñu ci baaxam ak yërmandeem ba ñu fekkewaat waaye di sant mbooleem diwaan mu topp sama tu dara yi tàmbaleen ko ca ña ña tàmbali woon baas yi ñi doon togg ba ci sécurité bi ñi doon zikkar koor yi diwaan bi yëpp seli yi diwaan bi yëpp maa ngi yëkkati kàddu cant di leen ko sant ci loo xam ne ñun ñëpp ñoo maase war a santante ndax yàlla dimbali ñu woon bokk di jéem liggéeyal yàlla kon loolu maa ngi leen di ci sant di sant waajur yi mbooloo mi ñi ci teewlu kàddu yi nag mën naa bañ a gudd ndax lu ñu yàgg def la lu ngeen xam la mooy waxtaanee yonantu sallallahu na bëgg naa ngeen concentré wu ba ku ci yore téléphone mbaa muy wax ak moroomam mbaa muy def leneen mu may ma nopp déglu ma ma waxtaan ak lu ñuy fàttali yonantu sallallahu alayhi wasallam ngeen mën koo yóbbaale ñi nekk ci biti baas bi ñi nekk ci biir baas bi képp ku ci nekk di wax mu noppi mu déglu ndax bu ñuy waxtaanee ñu baax ñi yërmande yàlla day wàcc te ñu baax ñëpp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu leen amal tuuti ci mbaaxam ñu séddale leen ko ndax Serigne Touba wax na ko min mustaara al ghurru kulla man xaba sàmm bi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ àbbee jikko yu baax yi ñu leen nawee kon ku mel noonu buñ ko waree waxtaanee war war koo fàttali képp ku fa teew war nga déglu bu baax su ngeen déggee alquran yàlla di wax ni wa ida quri alquranu fastamiu lahu wa ansitu laallakum turhamun su ñuy jàng alquran da ngeen ko déglu da ngeen def al istima maanaam déglu waaye da ngeen def wa ansitu mooy da ngeen di teel dara ba ñu yëngu laallakum turhamun ndax ngeen am yërmande yàlla te alquran yontu sallallahu alayhi wa sallam Sayyidatuna Aïsa bi ñu ko laajee kan mooy moom sallallahu alayhi wa sallam dane xuluquhu alquraanu ay jikkoom moo nekkoon alquran kon ñi ngi waxtaanee koo xam ne texte boo fekk ci biir alquran muy wax bu baax texte boo fekk ci biir alquran muy wax jikko ju baax xamal ne jikko joojee yonent sallallahu alayhi amee woon na texte boo fekk ci alquran muy ŋàññi bu maam mi ŋàññi ñu woon xamal ne jikko jooje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amiwu ko woon te da ko daan teel dëgg te Serigne ci nekk ci lenn lu dul gàmmu bi mu ràmb ba sori te may na te ngeen xam ne man du ma ko bari jot du ma ko jot mënuma mënuma mënuma bëgg a waxtaan ci Yonent bi sallallahu ay nit di waxtaane leneen di ma perturbé su ci loolu amee damay arrêté damay def. ku ci ku na na na na lamb ba sori parce que yonent sallallahu alayhi la ñuy waxtaane yonent sallallahu alayhi wasallam boo ko tuddee en tant que na aadama sax malayka yi dañ naan teg ba ci malayka yi ñuy wax malayka suyax nga xam ne dañuy circulé boo tuddee tur yonent sallallahu alayhi wasallam ci saa si dañ naan teg julli ci moom doog a jaar kooku kon buñ ciy waxtaan dafa laaj dal ak déglu bu dul loolu du ñu yóbbaale dara bugguma nag ñu ne dama tàng tànguma dama bañ ngeen ñëw fi te du ngeen jëriñu loolu laa bëgg su ngeen déggee xutba àjjuma ñuy wax ne bu imam di xutba ku wax sa julli yàqu na li ñu bañ mooy euh, message bi imam di jàllale ku ko giriyee nit ñi ba duñ ko yóbbaale même bu fekkee ne dañuy julli àjjuma imam tàmbalee xutba bu nit di wax boo ko nee noppil sax yow wax la dégg ngeen ko ngeen déglu ma seen njëriñ rek laa leen di jox li ñu war a waxtaanee mooy julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñ may waxal na leen jikko yi Yonent bi sallallahu alayhi wa leen ni leen nekkal ci gaaw ma fàttali leen julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa ci ngeen dëkk téere bi ngeen jàkkaar lool mu ngi tudd Dalaa'ilul Xayraat jullikat yi ci yoon sallallahu alayhi nit bari xam nañu sëriñ bi bind na xasida bu ñuy wax duru samin fi salatu ala nabi lamin ci biir xasida boobu am na benn ala nabi bu fa nekk boo xam ne lu mu gudd gudd gudd tollul tollul ni xasida wa kaana xaqan salatu ala nabi boobu matul tollul ni wa kaana te sëriñ bi wax na ca ne boo ko jàngee benn yoon ñett li nañ ne boo ko jàngee mel ni ku jàng téere bi ñaari junni yoon moom dara ilul xayra dara ilul xayra mu nekk téere boo xam ne dinañ ko wax dara ilul xayra di ko wax sawaariqul anwaar fi salaat ala nabil muxtaar ki ko bind nekk ku ñuy abdullahi ibnu muhammad ibnu abdurahman ibnu abi bakar suleyman مم أب أب حسن لا شريف لا لجيتو أي شكل تكنا بل من يرى جلي جوت فرنسا لم جلي جوت فيجي أو فيلي بجي صلاة السعادة بيجي دون جانج اللي جوي اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدون ملك الله صلاة بوم من جوجي تجري بيجي دلائل الخيرات nga xam ne téere bi lu mu ndaw ndaw am na ci àdduna bi lu mat ñetti téeméeri ak yu lu tegal ëpp na ko sax ëpp na 300 ans ci kaw monde kon julli ci yontinasam ay importance am ak ay njëriñam moom la borom Dalaa'ilul Xayraat tijjee introduction Dalaa'ilul Xayraat pour xamal la li ngay waaj def yow lan la mu gàtt importance bu julli ci sallallahu alayhi wa sallam ma fàttaliku mel na mag mu ñu bay bay jaane yàlla ko yàlla doole ay leer xurumaake la nekkoon sëñ bay jaxate moo ko yar wax na ma ni ma sëriñ Tuubaa xàmmee woon naa ko sax man kon gis na sëriñ bi wax na ma ni ma bi sëriñ bi di dellu Tuubaa maanaam di ñu waxee ne làqu na ci zahir bay dellu Tuubaa fàttewuma ci daal mos nañoo am am jataay di waxtaan ci julli ci Yonent bi mu nekk li ma ne ma am na am na benn waliyu boo xam ne dafa amoon armeel yoo xam ne suñ borom da leen a woon ci seen melokaan ba tax dafa defoon tàkkusaan ju jot day am niiru mbugal wu ñëw ba tiim leen moom la malayka yi di xàmmee ni ñii dañ leen a war a mbugal ñu mbugal leen ba tàkkusaan ja delsi weneen niir ñëwaat te def nañ ko ay at ci at ci at ci at ñu benn wàll yu moo dugg ci armeel ya di ziyaare ji ña ca xabru ya pour ñaanal leen dugg ci armeel ya xelam dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jékki-jékki ne salli ala muhammad ne rabbi salli ala muhammad yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi kàddu googu bi ko wëli woo waaye saa si tombe am na niir buy ñëwaat pour mbugal si ña su borom dafa digal malaaka yi ne ñu dab ñooñu bu ñu yem ne bis ni ci tey mbugal ñu mbugal ko arrêté ndax armée dañ sama xarit bi sama soppe bi nga xam ne bëggal sama muy muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. sallam di ne malaaka yooyu suñu borom ya fa dem di mbugale suñu borom nee sant na leen waxtu tàkkusaan saa yu jotatee nañ fa yóbbu teranga yu toll ni mbugal leen fa laa yóbbu ba ba saa di taxaw lan moo leen ko yàlla julli lu am doole moom rek mooy jaamu yàlla boo xam ne permettre na la nga ñàkk laab sax te amoo pexe am sañ-sañu julli ci yonent sallallahu alayhi wasallam xanaa ko mën julli ci yonent sallallahu alayhi wasallam yàlla goo xam ne yàlla dañu ko digal ak i malaaka yusalluuna ala nabi dañuy julli ci yonent bi yàlla moo ko ci alquran yàlla ak i malaakaam dañuy julli ci yonent bi yaa ayyuhallazina amanu yéen ñi gëm yàlla ak yonent salaa salaam sallu alayhi wa sallimu taslima julli leen ci moom ci sëlmal ci nga xam ne julli ci yonent bi benn yoon ci sa dund farata la ku dund ba faatu te musta julli ci yonent bi benn yoon ëllëg yàlla da koy laaj ñëpp koy laaj benn yoon bi moom c'est obligatoire leneen lu ci des nag da ngaa volontaire di ko def ngir li nga ci xam ak li mu li nga sopp yoon salaam salaam kon ngeen bàyyi xel ne julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn yoon ci àddina farata la kenn amul droit nekk julli ci di foofu ndax yàlla da fi'lul amri la sallu alayhi wa sallimu tasliman léegi nag yàlla mi ko digal dafa am ñaar yoo xam ne mën naa suuraale yàlla buur la boo xam ne duñu ne day jaamu boppam de wante yàlla njubam xam nga xam nga digg digle njub te juboo dafa bari comme sama galas yàlla nag moom dafay diglee jub ba noppi moom dafa jub ba noppi lu muy diglee da da ciy jiitu bi mu diglee pour ñu kennal ko da ciy jiitu wax ne shahida allahu annahu laa ilaha illa hu yàlla seedeel na boppam ne amul buur bu moom dugg ci biir alxuraan mu ne faalam annahu laa ilaha illa allah بولي من سورة الحاسمة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله يرجدك الذي لا إله إلا هو يرجع إنني أنا الله لا إله إلا أنا قال بمو نين نين نين ما كنال كنال كده تي جيتون بكم لغوا وفي كور دفع نيكو كو أم سورة ببارين لين كنال لين مو بكتا كنال نخد نكو بيوتي لسو بابا bu boobaa day ami doom wante fexe na ba nanguwuta am soxna nanguwuta ami doom bokkul soxna buggul bugguli doom kon kennal boppam moo ci jiitu jaam ñu ko kon baat bi ëpp solo li ëpp solo muy yàlla yàlla da koo digle moo ci jiitu bopp moo ci jiitu ñëpp bu taw nit jàllee ak jaamu si borom li ci topp salaatu ala nabi moo ci topp de Sëriñ Tuubaa moo ko bind dane wa afdalul aqwaali fil maraami kalimata shahaadatil islaam ñaari baati seede yi ñoo gën ci lépp lu di wax ci aw làmmiñ te loolu yonent bi waxoon na ko wa sallam wax ne afdalu ma qultuhu ana wa nabiyuna min xabli laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu kàddu gi gën ci kàddu yi mës a génne sama làmmiñ kàddu gi gën ci kàddu yi gën a yi mës a génne ci làmmiñ yi yonent yi ma jiitu woon mooy laa ilaha illa allahu la sharika lahu amul buur bu dul yàlla yàlla kenn la bokkul ak nguuram gi kenn waaye su jàllee sëñ bi ne ginnaaw laa ilaha illa allahu rasulullah lépp looy jaamooti yàlla ginnaawam julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko a mal loolu bind nee na ginnaaw bu farata ci jàllee mooy laa ilaha illallah muhammadun rasulullah looy jaamooti yàlla ginnaaw bu laa ilaha illallah muhammadun rasulullah jàllee nee looy jaamooti yàlla rek julli ci yonent saa sallam gën a ñu dugg tuuti ci julli mu ne dañuy nekk si ne yonent bi sallallahu mas naa ñëw jëm si ci mbooloo mi ñi ko miin ñëpp xam ne xar kanamam dafa ànd ak mbégte bi mu ñëwee ne Seydina Jibril dafa ñëw ci man ne ma yow Muhammad xanaa d'accord woo xanaa kontaanoo wala gërëmoo ci ne yàlla nee na kenn du julli ci sa xeet bi ci yow benn julli lu dul ne moom yàlla dina julli ci moom fukki yoon yàlla julli ci yow yow jaam bi ndax seen ab njëriñ bu baax mooy julli ci yow ana fan yàlla waxee ne boo taree kaamil bi ma julli ci yow waxu ko benn de te dane boo jullee ci yonant bi sallallahu si wa benn yoon man yàlla ma julli ci yow fukki yoon ndax jàpp ngeen ne yàlla dana julli ci benn jaam fukki yoon jaam ba di dem sawara di ngeen ci xam dara ci kanam tuuti نين لك تنلك ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليك عصرا نينا كن اللهم صلي bu ko waxee benn yoon nee na fukki yoon laay laay julli ci moom man yàlla waaye bu nee wasallim bu nee allahuma sallim bu ko nee fukki yoon yi nee na fukki yoon laa koy def ci moom fukki yoon yi yàlla fukki yoon yi yàlla da ngay da ngay xalaataat bu baax dóor bu ne day tolloo doole yi ki ko dóor dégg ngeen mooy wax jullit yàlla dafa foor dóor day tolloog doo lay tur ko mu ne yonentu saa sam nee na ki gën a yey ci man yowmal xiyaam mooy ki gën a bari lu muy julli ci man inna awla aw inna awla naasi bi aksarum alayhi salaatan ki gën a yey ci man ci nit ñi mooy ki leen gën a bari lu muy julli ci man صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلت عليه الملائكة ما دام يصلي عليه فليقلل عند ذلك أو ليكسر لأن من دار محمد صلى الله عليه وسلم كجل من ملائكة يدني جل جيه وقبر المباغة توجل وقالوا لي من يعني هي الله بم خزي جل جيه ومون وهو اللي يمجي ما تي فوق أمنا بينا سيو سيو بودوي وعنو بينا يالا دنو ييني وانت نيكو ندا أمنا يولد صلى الله عليه وسلم من كبير كي وطل جيه ba yàlla ne moom mi ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu malaaka yi julli wutoon sax doy na waaye moom day julli ci moom malaaka yi di julli ci moom te it dafa ne ci moom man yàlla damay julli ci yow dañuy julli ci yow kon li yàlla ak i di defal yonent bi sallallahu alayhi boo ci bëggee am dangay ngay julli ci yonent bi sallallahu alayhi kon ku mu neex nga ne yàlla day julli ci man ak i malaakaam ku ko mën a weddi ndax yàlla moo ne yonent bi moo ne ku julli ci moom benn yoon yàlla julli ci yow. mu ne yonent bi sallallahu na ngeen bari mooy lu ngeen di julli ci man bisum ajjuma yéen sama xeer bi mu ne yonent bi sallallahu alayhi ku julli ci man ci sama xeer bi genn julli yàlla dana ko bindal fukki tuyaaba effacé ko fukki ñaawteef yoo xam ne moo ko def. kon da ci gis ne gën a bari julli ci Yonent sallam day mel ni da yore sa benn boros fekk sa tilim di boros muy gën di set rek ci day ndànk-ndànk ku la gën a bari julli ci Yonent sallam moo la gën a mën a set ci ay bàkkaar bu ko defee kon diir boo nar a toog rek di ko waxtaane si bés jàmbur allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam كيف كو خامي دغنا اك نود ولا لقام مو وخني اللهم هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ادي محمد الوسيله والفضيله وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وعدت الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامه لولو ما واخ لي يونس صلى الله عليه وسلم كيف كو دغ لقام نا ولا نا دغ نود نا واخكو nee na kooku moom yombal fi am dinaa ko ram lu yomb la saa yu noddee nga wax ko mu ne képp koo xam ne bind na ab téere maanaam moo xam ab livre am la war a dara mu muy bindu téere bindaale sama tur ca téere ba fii léegi sama tur woowee mu bind ca téere ba julli ci man ma nga ca malaayka yi dañuy julli ci moom moom ne ko def mu ne Abu Suleymaan ad-Daraaniyu nee na ku bëgg boo ñaanee yàlla mu nangu ko na nga ubbee julli ci yonent bi sallallahu wa sallam ba noppi ñaan la nga bëgg te tëjeewaat ko julli ci yonent bi sallallahu wa sallam ñaan wax ne képp ku julli ci man bisum ajjuma téeméeri yoon yàlla dana ko jéggal bàkkaar yi juróom-ñaar juróom juróom-ñett fukki at ajjuma nga julli ci yonent sallallahu alayhi wa sallam cent fois allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wala allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatiha wala allahumma salli ala sayyidina muhammadin dama fi billahi salatan daimatan daa mulki la nee na cent fois rek nga koy def téeméeri yoon ajjuma bu doon da ngaa ba am quatre-vingts ans ajjuma jot nga def ko quatre-vingts ans yi passé woon yëpp yàlla nee na effacé naa ñaawte bi ci defoon baal naa la. soo ne ku amagul loolu. mu ni moom Abu mu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na kii ci man day am ak leer buy jéggi siraat E ah, te ku am ak leer buy jéggi siraat dana mucc ci sawara du bokk ci wa sawara mu ne yonent bi salaa sallam nee na ku fàtte julli ci man dal na la leer ne fàtte nga yoonu àjjana man nasiya salaata alayya faqad aqta tariq al janna ku fàtte julli ci man fàtte nga yoonu àjjana wala réeréew mu ne yonent bi salaa sallam jibril ñëw na ci man ne ma yow Muhammad laa yusalli alayka ahadun illa salla alayhi sab'una alfa malakin wa man sallat alayhi almalaikatu kaana min ahli aljanna dégg nga wax ji dana jibril ñëw na ne ma yàlla nee na yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam amul kenn kuy julli ci yow du dul ne soixante-dix mille malaaka dañuy julleendoo ci moom ci saasi saasi te ku malaaka yi julli ci moom mu bokk ci waa àjjana ku malaaka yi julli ci moom la wax de waa ku yàlla julli ci moom la ca départ yàlla dana woon boo defee benn ci moom ma def ko bu ci yow c' est comme 70000 malaaka yooyu la bu ñu jullee ci yow doo dem doo dem sawar kon ci moom. foofu la aarifoona billaahi yi rawee ñu bàyyi bare bare mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man salla alayya asra marratin sallallahu alayhi mi ku julli ci man fukk yàlla julli ci moom téeméer wa man salla alayhi mi at maratin alayhi alf mara ku julli ci man téeméer yàlla julli ci moom junni yoon wa man salla alayhi alfa maratin harrama allahu jasadahu ala naar ku julli ci man junni yoon yàlla araamal aw yaramam safara dégg ngeen yonent moo ne ku julli ci man junni yoon yàlla araamal aw yaramam safara du fa dem te dégg ngeen bu yàggatoo jaay am ay ñoo xam ne ña nga ca ginnaaw internet ba laa ko ci ay ruq di di di di di di wax wax ju ñaaw jëmale ko ci yoonu murit di wax ne yoonu bi la yoonu bokkaale la bu ñu faatoo dañuy dem sawar te ñu ci yoon yi dàq julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoon yi dàq wax laa ilaha illallah te yonent bi sallallahu wax laa ilaha illallah da nga dem àjjana ku julli ci moom junni di nga dem sa àjjana sa yaram araan na sawar yonent bi salaa salaam moo ko wax ah? ndax li yonent bi salaa salaam wax seen yéene jooju ñoom da koo mën a effacé hmm? dañuy wax ne nitu tasawuf nitu bidaa lañ dañuy dem sawar sawar lañ yéene nitu tasawuf wala yàlla yéene na leen àjjana ndax nitu tasawuf ñoo fi dàq julli ci yonent bi salaa muy muy tarix yi yëpp nag saa yu takkusaan ba tey nga dégg suñu mbokki tijaan yi ñuy yëkkati alfaatiha li maa ughliqa yoo xam ne salaatu ala la fees seen dell ak waxi Sëriñ Tuuba moo romb tool noonu ku leen considéré waa sabara xamoo dara jee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ku sa wax lan moo la leer nekk jiw julli na ci yonent bi junni yoon waxuma la euh, xale yu ndaw yi ñu mujj yi waaye mag ñi ñi ma ci tarbiya ñu miin ma ak ñi may waxee ñoom ci tur ak ñi ciy doxee ma ñoom yàgg naa leen a sikkarloo ay douze mille laa ak lu ko salaatu ala nabi lu nekk ay yoon yoon ci laa dëgg bañ naa ko ba sax fi ne bu ñu xamoon ne bu ci gis te gisuma la nga yor kurus léeg-léeg damay xaw a mer parce que damay xalaat ne yow aussi tudd yàlla bariwul damay bëgg fu ma la gis nga yor sa tuddukaayu yàlla di tudd yàlla sans complexe yonent bi sallallahu alayhi wa nee na julli ci man junni yoon yaramam araam na sawara te yàlla dana ko saxalal ci xawlu saabit fi lxayaati dunia wa fi l axira inda al masalati buñ koy laaj ci bàmmeel wala fa ñuy laaj yowmal qiyaam luñ ko laaj day teew ci xelam te day ànd ak stabilité ak dal mën a tontu tontu yu correct ndax julli bi mu doon julli ci man loolu yàlla moo ma ko defal man Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko wax nee na te julleem yooyu noonu dañuy ñëw yowmal xiyaam nekk ay leer yu koy gunge ci siraat dinañ ko gunge doxu juróomi téeméeri at ci ay leer maanaam distance boo xam ne nii 500 ans la ko waroon a traversé dinañ ko éclairer distance boobu yëpp ci julli bi doon jur distance boo war a traversé ci 500 ans su fekkoon ne dañ lay wutal ay lumière. bu fekkoon ne addina la ah da nga sonn de 500 ans xorandoom bu fekkoon deewul ci 500 ans yi nga bàyyi ko muy dox te nopp lu lu mu ndaw ndaw ndaw dana ci dox ay junni kilomètre 500 ans du lu ndaw te nee na mu noppee yàlla jépp julli koo julli woon ci man dana la jox kër gu rëy ci àjjana نينا لولا ريك نغا بارين جولي اك نغا نيول كو جيم موسى جولي تول سي مان ني لا سي كير تول سي اجي من يوم سنه نينا ما من عبد صلى عليه الا خرجت الصلاه مسرعه من فيه فلا يبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب الا وتمر به وتقول انا صلاه فلان ابن فلان صلى على محمد المختار خير خلق الله فلا يبقى شيء إلا وصلى عليه ويخلق من تلك الصلاة طائر له سبعون ألف جناح في كل جناح سبعون ألف ريس في كل ريس سبعون ألف وجه في كل وجه سبعون ألف فم في كل فم سبعون ألف لسان كل لسان يسبح الله بسبعين ألف لغة ويكتب له له صواب ذلك كله له من ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا نعم. amul benn jaam buy julli ci man lu dul ne bu julli nga génnee ci gémmiñam day daal di gaaw lool du romb jéeri ji du day romb du romb géej du mbaa romb jéeri ji mbaa romb penku bi mbaa sow bi lu dul ne moom julli nga day wax di wéy naan man maay julli doomi diw ak diw daa julli ci Muhammadunul Muxtaar ngën ji mbindeefum yàlla bi nee na bu boobaa fala yabqa shay'un illa wa salla alayhi nee du des ci ci ci moom bi dul ne ci moom ci saas nga xam ak nga ñàkk xam nee na wa min tilka salaati taa'iratan nee na ci julli googu su borom da cay bind am picc moo xam ne nee picc bi juróom-ñaar fukki junniy laaf la laax mu ci nekk nee na am na juróom-ñaar fukki junniy dunq dégg nga nee na moomu juróom-ñaar fukki junniy xar la am xar bu ci ne juróom-ñaar fukki junniy gémmiñ la am gémmiñ bu ci ne juróom-ñaar fukki junniy làmmiñ la am làmmiñ bu ci ne day sàbbaal yàlla ci soixante-dix mille langues yu bokkul. tiyaaba joojee jëpp ña ngi koy bindal ka julli ci yontu sanaan sa fekk yàlla julli na ci yow وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي يوم الجمعه 100 مره جاء يوم القيامه ومعه نور لو قسم ذلك النور بين الخلق كلهم لوسعهم ولا تنظر على Seydina Ali ibn Abi Talib nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne ku julli ci man <coughs> ku julli ci man àjjuma téeméeri boo yoon yow man xeyaam ñëw ànd ak leer boo xam ne bu ñu ko séddale woon mbindeef yëpp mu mu mu mu gën ëpp leen جنون ومعه نور dina ànd ak leer boo xam ne law xusima bu ñu ko séddale woon baynal xalqi kullihim la la ci teg bu ñu ko séddale woon mbindeef yépp la wax de mbindeef yi bari na de sant la ñu ngi jokki ci baas bi ci mbindeef yi la ko ña njëkkoon a am faatu ci mbindeef yi lañ ko ñii mujjee ñëw ci mbindeef lañ bokk malayka yu bari yi ngay dégg ci mbindeef lañ bokk fekk suuf yi ci mbindeef yi lañ bokk mbindeef lañ bokk mu ne yonent bi sallallahu alayhi ku julli ci man ajjuma yowmal xiyaam buy teew ci kanam yàlla dana ànd ak leer goo xam ne bu ñu ko séddale woon mbindeef yépp mu mu mu mu daj leen ba des سوني بروم دفا بن من استحق الي رحمته كو صوبا داجي من كو ام توخيل جوم سي من من يالا دينا كو يير واي ومن سالني اعطيته كما لاج دينا كو جوخ ومن تقرب الي بالصلاه على محمد غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر لأن سيكون نعم. هناك nett yi nañu ne yàlla suñu borom nee na dafa bind ci kenuy aras yi ne ku xemee ma jëm si ci man danaa ko yërëm ku ma laaj danaa ko jox ku jege-jege lu jëm ci man te jaare ku ci julli ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam dinaa ko baal ay bàkkaaram su bari woon ba mel ni vague yi géej gi duusu bis bu set ñaata yoon la la géej gi di dégager ay vague par jour vague yi ci gën a yi egsi ci ci tefes mooy yi ci gën a daw buy egsi foofu parce doole ji jeex ku ci mel ni Mor Talla Cissé léeg-léeg bu ñu waxtaanee ci géej gi damay wax ne man ndox mi boo duggee ba ci biir am na vague yoo xam ne rëy na rëyaay boo xam ne waxuma la pirogue yi nga xam ne ay gaal artisanal la waaye bateau bu mag sax na ko tamponné dóor ko mu tas wala mu daaneel. yonent bi sallallahu suñu borom ne dafa bind ci aras ne ku jege jëm si ci man ku xeebeem jëm ci man dinaa ko yërëm ku ma laaj danaa ko jox ku jege jegeelu jëm ci man te jaarale jege jegeelu googu ci julli ci Muhammad danaa ko jéggal ay bàkkaaram su bari woon ba mel ni bàgg yi ci géej gi mu ne jëlee nañ ci yenn ci saxaaba yi ñu ne amul benn jataay boo xam ne dees na fa julli ci yonent sallallahu alayhi lu dul ne suñu borom dana def nga xet bu neex jóge fa yéeg jëm ci asamaan ba malayka yi di laajte yii lan la mu leen di tontu naan lii xet bu neex la boo xam ne mu ngi bàyyi koo jataay sàngam ndax julli gën fa julli ci yonent bi sallallahu alayhi nettali nañ ci ay xabaar ne bu jaam bi tàmbalee moom moom way gëm bi bu tàmbalee di julli ci sallallahu alayhi wa sallam dañu koy ubbil bunti asamaan yi mu am ay ceneer yuy bàyyeekoo ci asamaan bi tàpp ci moom te du ko yëg ak ay ceneer yuy ci julli di muy julli ci moom di dem ba aras neen amul benn malaaka mu des ci asamaan mu dul ne bu séenee rayon yooyu ceneer yooyu lumière bobu jóge ci la bañu kooku ku ci nek ci mën a yooyu lay daal di taxaw ni suñu borom ma ngi lay ñaan ci sa màgg nga jéggal ju ndax da julli ci yonente salallahu alayhi wasallam lolu lu magal yonente ci alayhi wasallam nee man asura alayhi hajatuhu falyuksir bi salati alayhi fa innaha taksifu al ghumuma ghumuma wal ghumuma wal walkuruba wa tuksiru al alarzaq wa taqdi alxawaija yonent bi salaa salaam nee na ko am aajo te bëgg mu faju na nga bari looy julli ci man ndax day dindi njàqare day dindi jaaxle day dindi kar buy tekki njàqare lu tar te julli ci man day bari lu wërsëg te day faj aajo am na benn waay boo xam ne nekk si na dama amoon dëkkandoo boo xam ne ràbb la daan liggéey ràbb ay sër ak ay yére نينا فمات فرأيته في المنام مفعل ما جيش كو تيجين فقلت له ما فعل الله بك وايو لولا يالا ديف من ما غفر لي يالا بالنا ما نكو فب بما ذلك واو يو لولا يالا بالي فقال قلت إذا كتبت اسم محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب صليت عليه لأن دما دفما واحد دما yi tax yàlla baal ma bu ma masaan di bind ab téere ba ba bind tur Muhammad sallallahu alayhi wasallam damay julli ci moom ci mbind mi doo ko jàll yàlla su loolu moo tax mu baal